très chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu di remercier bu baax a baax si ni ngeen di àndee saa su ak sunu ay programme te seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série Babel épisode 56 ñu door ko ak euh, ki nga xam ni moo di Khalil moom nag gis nañ ni ni maman Oumou euh, bëgg rek euh, maltraité ki nga xam ni faa di ko teg loolu nag moo tax mu daal di koy yërëm ndax ku ne xam na nit ko bëggee doo bëgg dara lu métti rawatina diggante jëkkër ak jabar dafa jege-jege boo xamante que ni sa jabar lépp lu ko laal rek yow dalay laal ndax sa responsa si sa responsabilité la nekk ba tax na boo sañoon doo du am dara lu koy métti waaye nag eh, gis nañ ni femme moom elle est ba tax na lépp luñ koy tegoo rek da siy jéem a def lu mu mën ngir nag kenn bañ a mer ñu jàll ci Leila Leila nag moom eh, li mu bëgg mooy kut ko kut fexe ba xadi xadi eh, caam du sëy ak ki nga xam ni moo di Ousseynou ndax bëggul mu def mauvais choix ndax xam na ni li nga xam ni li nga xam ni moo di sëy mbëggeel moom moo ko war a lal waaye nag yàkkamti wala nag bañ ku la mere ba tax nga def mauvais choix ci loo xam ni c'est ta nekk na loo xam ni lu doy waar la ndax comme li ñuy wax rek sëy moom euh, boo ciy dugg euh, xamal ne du benn fan du ñaari fan loo war a def toute ta bii la kon nag euh, dafa nekk loo xam ne boo ci dugg war nga ko xoolaat bu baax baax kon nag moom mi nga xam ne moo di Leila kon bugul benn yoon Khady Thiam di def loo xam ne ëllëg da koy regretter ndax boo sëyee ak koo bugul tôt ou tard nga ko rëccu ba tax na nag mu ñëw ci ki nga xam ne moo di Nabou Gueye ak Ibnu ak ki nga xam ne moo di Bakir plutôt ngir nag jéem a waxtaan ak ñoom ngir ñu xam ni seen doom heureusement waaye nag ñoom gisuñu loolu ñoom lenn lañ gis te mooy xaalis bi te xaalis bi gis nañ ni Bakir commencé na ko caaxaanee euh, waaye Khady Thiam moom it euh, lim euh, wane te mooy xale bu ndaw ñu war laa xewal nga ni bëggoo anytime loolu day wane ni kon sawarul ci sëy bi te nag loolu rek waroon naa tax ñu comprendre que ni sawarul ci sëy bi ñu jàll ci maman wu moom nag li mu tere fa mooy li muy defaral ki nga xam ni moo di père Ndiouga chaque chaque matin ndékki ndax nee na nag léegi moom moo koy toppatool boppam ba noppi nag daal di koy yemale xamal ko ni ko itam fu mu mënti nekk itam bu reer jotee moom moo koy togg daal di koy taaj loolu nag njuga gis-gis euh, teg ci bëtam gis ni ki nga xam ne moo di maman Oumou euh, day maltraité fa mu daal koy yemale xamal ko bu baax a baax fi mu war a yem ndax bëggul rek kuy théoriser famille wam ñu jàll ci Omar Thiam moom nag commencé naa freiné Fifi euh, ndax jàpp na ni Fifi da koy xañ boppam te nag loolu dafa yàgg ndax boobu ba tey mënul jote ci moom te muy jabaram dem na sax ba koy wax ne ko seen génn moo gën a neex seen sëy te ku ne xam na ni jigéen daa gaaw a gis boppam ba tax na nag Fifi bëgg ni li ko war mooy euh, sëy ak jëkkëram te sa jëkkër bu la soxlaa dangaa war rek daal di euh, def li nga xam ni moom la bëgg ñu jàll ci Leyla Leyla nag moom mënul comprendre euh, li tax yaayam contre fa ba tax na mu ko koy laaj waaye nag maaw mu ni ko tontoo wane na ni bëggul fa benn yoon te comme li ñuy wax nag nit moom boo xas yoo bañ ko bañ nga ko rek doo xam sax raison yi tax nga bañ ko loolu nag moo dal maaw mu moom dafa bañ faa te nag bañ gratuitement ndax lépp luñ doon tuumal faa tey setal nañ ko waaye loolu nag taxul mu supporté ko ba tey ñu jàll ci ki ñëw seet si docteur si par surprise waaye nag li mu gis euh, moom it surprise la ci moom ndax dafa fekk docteur si ak benn xale bu jigéen ci biroom mhm. loolu nag euh, moom euh, Leyla mënu koo digérer ba tax na mu tuumaal ko ba xale bu jigéen bi gëm ko mu mel ni kon relation boobu moom Leyla yàq na ko waaye nag moom Leyla mel na ni commencé woon na am ay sentiment ci docteur si ndax li mu gis métti na ko ba tax mu dem di ko wax ñoom fa ak ki nga xam ni moo di Awa Cheikh ba tax sax ñu koy reetaan ñu jàll ci fifi fifi nag moom dafa rek dal di bett Bakir ci kër Ina ndax dafa demoon di jënd ay cuumukaay waaye nag bi mu demee fa la fekk Bakiya muy loo xam ne nag arme boobu nar a xeexee la ak Nabou Guèye ndax Nabou Guèye lu mu ko bëgg a euh, euh, sonalati rek yaakaar naa dina ko wax ndax am na rek lu mu koy xeebee ba tax na ko nit boo nekkee kilifa danga war a mat kilifa te def bañ a def loo xam ne ku la ci fekk daal di lay xeeb wala xeeb sa jabar ju jàll ci Père Ndiouga moom nag yóbbu na sa Sadiq ak Ibnu ci euh, sëriñam ngir nag mu daal di leen di ñaanal ci problème am leen rek la mooy njabootam gi nga xam ni jubóowuñu tey ñu ngi xiiroo di ŋaayoo loolu nekk na loo xam ni lu ko euh, métti la waaye nag sëriñ gis na ni Ibnu Thiam dañ koo daal di euh, liggéey euh, ba tax na na koo saafara mu mel ni koon Ibnu di jouer nañ ni xolam neexul ndax bu gisee Khady Thiam mu ngi jouer le jeu waaye bu Khady Thiam demee mu ngi métti lu le fait mu daal di koy trahir le fait mu won ko ni ki nga xam ni moo di <coughs> Tidiane la bëgg ba tax na Aziz nga xam ni di sëram mosul ànd ci relation bi di ko conseiller que ni mu éviter rek tomber ci propre piège am ndax nag bu fekkee ni que bëgg takk Khady pour souffrir loo ko mbëggee la mun na ko empêcher ñu jàll ci faafa nag moom mi ngi euh, waxtaan ak euh, ki nga xam ni moo di Awa Cheikh si waa ji nga xam ni moom moo ko euh, fatoon te tey ñëwaat ci crèche bi ndax ñoom jàpp nañ ni hasard amut kon loolu bu amee peut-être signe la te moom Awa Cheikh moom dogg na ni pare na ci sa Sadikh ndax jàpp na ni lim doon dund ci sa bi mu ci génnee si la xam ne lim doon dund lu normal ñu jàll ci faafa nag moom dafa euh, taar dafa yéex a ñibbisi ba tax na maman um bi mu ñëwee mu xas ko ba mu ràpp waaye nag forcé ko kii pour mu toggal ko reer ndax reer bi lay laa togg nangu ko lekk ndax nee na faa moo koy toggal mu lekk loolu nag nekk na loo xam ne lu métti xalil la waaye mënu ci dara ndax faa daf koo nangu dem daal di koy toggal xalil nag yërëm na ko ba tax na mu ñëw di ko euh, jàppale di espérer que ni su paree euh, mook faa dinañu rek mën a dund ñoom it seen mbëggeel seen biir néeg daal di euh, matale lépp ba tax na soo matalee lii euh, dina am loo xam ni moom mooy des te xalil nag malheureusement à chaque fois li faa warloo ak moom moom mooy des ndax balaay boobu day fekk faa sonn ba nelaw euh, loolu nag tax na moom xalil mu jog rek pour jël si solution ba tax na mu engage benn jànq pour faa loolu nag moment umu ne dee du ko di gérer ndax faa day wane saa su nekk ni moom moo ëpp doole ñeneen ñi leen wan xaalis ak yooyu ndax affaire de jànq mosul am ci ëtt baabel kon ko defee c'est parce que dafa a wane moom da koo accepté daal di dalal jàmm ki nga xam ni moo di jànq bi mu mel ni kon moom maman Oumou su moytuwul euh, li muy def faa dina tax rek moo père Ndiouga ñu xuloo euh, ndax père Ndiouga moom bëggul injustice te it nag bëggul kenn di tuutal nit wala nag di toroxal doomu jàmbur kon boo ko internet di foofu la yem ci épisode bu série Babel ma jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba